sabab mooy rek euh, ñu waxtaan ci suñu biir ci doxalinu parti bi réew mi ci biir département de Thiès mais également donc doxalin bi ci biir Sénégal ndax comme ni ngeen ko xamee président Idrissa Seck dafa am doxalin bu mu tëral bu bees boo xam ni mooy moo ci la bëgg ñu sukkandiku pour réorganiser parti bi loolu yàlla dogal mu bëggoon ñu tàmbalee ko Thiès te defe naa ni bi ñu defee élection référendum bi ba pare joxe woon na la ton définir woon na schéma bi ko war a të bi ñu ko war a tëralee te loolu bi mu amee it yàlla yàlla def fii ñu ko fi mu bëggoon ñu tàmbalee ko commencé nañ ko ndax defe naa ni gis ngeen ni à Thiès Ouest fa lañ tàmbalee et le maire Aliou Sow moom lañ responsabilisé woon pour mu tàmbali ko te defe naa ni liggéey boobu mu ngi koy def normalement donc ñu ngi ko ciy jàppale. beneen bi aussi à Thiès Nord le maire lamin Diallo mu ngi ci de même que à Thiès Est pour dire rek liggéey bi ni mu ko xalaate woon yaakaare woon ko waxi ñu ko ñu ngi koy doxale noonu loolu rek lañ bëggoon a wax responsable département bi ñu xam ni. jaratul ñuy xaar léegi liggéey bi ñu xaar rek ba benn commune pare ñuy tàmbali beneen ñëpp nañ tàmbalee ndaw donc schéma bi dañ koy définir par commune ku ne ñu jox la sa feuille de route wax la nañ ko war a doxale ñëpp tàmbali ndax li suñu sañoon ñu paree département de Thiès semaine prochaine déjà dinañ dem Mbour semaine bi ci topp ñu dem Tivaouane mais dañu bëgg pare région bi pour mën a dem ci yeneen département yi ndax waa biir Sénégal ñu ñuy xaar ñi bëgg parti bi dañu bëri responsable aussi dañu bëgg ñu gën leen a jàppale ci organisation bi defe naa noonu la ñuy def ba mën a gën a am parti boo xam ni ci taxawaay dina gën a mën a am taxawaay bi war ak yaakaar bi ñu am ci président Idriss Seck ñu liggéey ko bu baax ndax Sénégal yi bëgg nañ président Idriss Seck bëgg nañ ko jàppale mais également defe naa ni dañu dañu soxla <coughs> responsable di gën a jege nit ñi di gën a ñëw di liggéey ak ñoom defe naa si côté boobu tamit defe naa ni yàlla dogal dafa am lu ñu ci responsabilisé en tant que chargé de la vie politique donc ba tax na kon dañu bëgg aussi ànd ak kooku waa Thiès ko def ko ba avant décembre ñu mën a organiser parti bi au national defe naa ni 45 départements yombut mais également liggéey bi liggéey bu jafe la te defe naa ni important que responsable bu nekk xalaat ni liggéey bi moo ko war a def suñ jógee Thiès naturellement dañuy dem biir Sénégal mais defe naa ni jàpp nañu ni fii ak décembre pare euh, structuration parti bi ci quarante cinq départements yi direction euh, politique yëpp dinañ ko installer ndax am nañ 552 communes yu ñu war a installer mais c'est 6500 centres de vote. centre de vote bu nekk suñ fa defee fukki responsable rek c'est soixante cinq mille responsables soixante cinq mille responsables nit responsable bu ne su wutee dix électeurs rek dir sax dina am six cent cinquante mille électeurs en deux mille te loolu yóbbu na ko second tour te su demee second tour il est président ndax defe naa ne ku ànd ak Macky Sall dem ak moom second tour danga nga koy gañ. ndax day wane ne kon ni ngeen lëkkaloo opposition bi. Euh, naxe mbaay la rek yéen a ngi euh, xàll seen yoon. non du naxe mbaay naxe mm, ànd ak opposition bi li koy dëgëral parti bu nekk def sa liggéey ci sa sa liggéeyu bopp def ko ni nga ko war a defee organiser sa parti ba mu am doole bi war ba mu am taxawaay bi war pour que su ngeen àndee seen lëkkaloo gën a dëgër gën a am doole defe naa noonu la ñuy def ba mun a gagné te defe naa ni lool ça suppose que réew mi defaraat boppam defaraat taxawaayam ñi nga xam ne ñëpp am nañ yaakaar ci réew mi bëgg a dugg ci parti bi ñu dugal leen encadré leen ñu bëgg a dugg ci yeneen parti aussi dugg ñu encadré leen suñu àndee lëkkaloo joxeel te loxo comme leader dañ koy defee à la base defe naa ne victoire bi day gën a simple te defe naa ne loolu dafa war a tàmbali en 2017 donc defe naa ne am nañ ci yaakaar ndax liggéey bi bi xam ni parti bu nekk yaa ngi koy def sur le terrain au niveau national dem au niveau de la diaspora war mën na am yaakaar que incha allahu rabbi alternance moom dina amaat 2017 ak 2019 incha allah ci Sénégal te loolu day day demander parti bu nekk dafa xoolaat taxawaayam. dafa ñu moom mooy bopp bi. Euh, pour parti mi temps bi ngeen fi def ndax lu perdre temps wala loolu day wane ne parti bi da ngeen tekkaaral bu ñu déggul Idriss Seck rek yéen ñi mu fi teg kenn du leen sant non Thiès mooy xolu parti bi te xol moom dañ koy toppatoo donc xol dañ koy toppatoo te loolu defe naa ne moo tax ñuy def ay réunion régulière ñun presque chaque mois dañ am réunion benn ba ñaar aussi bien ci commune yi que département mais aussi ci commune yi nit ñaa ngi réunion donc mais euh, loolu wanewul ni au contraire parti bi dafa dafa am léthargie reste suñu anciens yi ñooy anciens yi nga xam ni ci Sénégal ñoo gën a régulier ci ay réunions tous les lundis les anciens du parti dañuy réunion à Thiès beneen bi mooy les jeunes pas plus que démb jeunes waa commune Thiès Ouest réunion nañ fii ci Sébère les jeunes de Thiès Nord dañuy réunion les jeunes de Thiès Est maintenant il faut que réunion yooyu mu mu mu law ci département bi yëpp mais aussi il faut que au niveau national même réunion yooyu lépp law donc kon léthargie amul. tey la ñu gën a taxaw pour jàppale gën a taxaway taxawal parti bi gën a jàppale président Idrissa sec te defe naa ni tey aussi lañu ñu gën a la Sénégalais yi gën a am yaakaar ci moom mais loolu day supposé nag ñu taxawal parti bi taxawaay boo xam ni yaakaar bi nit ñi am su ñëwee dinañ ko fa fekk ci en terme de structuration d'organisation et d'animation animation nag mooy dundal parti te animation boobu ñun ci lañ nekk. mais dafay supposer aussi structure yu dëgër nga xam ne soo ko sampee ba pare animé ko mooy tax mu am force énergie bi war pour su ngeen demee élection ngeen gañe ko te loolu am nañ ci yaakaar. dañu nemmeeku ne APR mi ngi tibb ci gafagat bi réew mi ci kii yi ñu jógee ndax bëri maire yu bëri yu jóge ci commune ci département bi ralé yu ci APR est ñun dañu bëgg leeral ci loolu dañ naan souvent maire réew mi yëpp APR jël na ko ñun benn maire moo àndoon ak ñun. dem APR muy meeru Xombol te élection yi mujj wane na ni demam yóbbuwul kenn ndax dañ koo gañe ba mu jugee si ci réew mi dem dañoo dem élection référendum ñu gañe ko cela veut dire que ñun militants yi amoon Xombol tey lañu ñu gën a taxaw gën a ànd ak ñun ci biir réew mi yeneen ñi dem kay beneen parti lañ bokk te ñooñu sax seen i militants ñu ngi ñëw di ànd ak ñun pour gën a dëgëral réew mi pour dire rek kon kon APR feneen lay tibb mais pas ci ñun beneen bi ci des tey la Sénégalais yi ak Thiessois gën a am yaakaar ci président Idrissa defe naa ni waa Thiès li ñu jàpp ñun cees li ngay sentir ci ñoom seen xol moom soo ko xaree Idrissa Seck ci nekk mais dañu bëgg Idrissa Seck gën leen jege dañu bëgg Idrissa Seck gën a nekk seen wet ñu koy gën a gis mais aussi responsable yi mu fi bàyyi ñuy gën a am taxawaay di nekk ci wetam. loolu aussi ci ñun la dépendre ñu gën a am taxawaay bi war pour que vraiment militant yeeg waa Thiès responsable yi gën a am confiance gën a am engagement motivation beneen bi ci des mooy waa Thiès dañu am. yéen ci président Idrissa Seck te yéen boobu eggagul mooy dañ ko bëgg gis un jour mu nekk président de la république te yéen boobu tey mu ngi koy gën a ànd waa Sénégal tey la waa Sénégal gën am yéen ci président Idrissa Seck pour mu nekk président Sénégal kon yéen boobu nag su àndeek waa Thiès ñi nga xam ne ñooy xol bi kon yaakaar day gën am ba tax na kon dañ li ñuy wax nit ñi rek mooy ñu gën a jàpp gën a am courage gën am motivation xam ne yàlla mun na def jàmm ndax li ci des li li ñuy li li ñuy li ñuy seen daal yàlla mën na def jàmm ba incha allah rabi li ñu bëgg di ko séntu yàlla mottali ko jàmm. politique mos def kaso. waaw mos naa def kaso waaw. loo jàngatee anam yi ñuy ñi donte yenn prisonniers politiques yi sax dañ leen beraloon loxo. waaw ñun prisonniers yi politique yi li ci am solo rek mooy nga xam ne prison moom prison la rek yàlla dogal na euh, bi ma demee foofu li ma fa gisoon doy na waa ndax li am solo mooy ñu xam ne ay doomu aadama ñoo ne ci prison yi ndax prison dañ naan jombul kenn tey am na ñoo xam ni kilifa yi res ndomb tànk yi Sénégal ba ñu retrouver prison sax loolu dafa bett nit ñi kon nga xam ni jombul kenn li am solo mooy ñu xam ni ñi nga xam ne ñoo ne ci biir prison yi ay doomu aadama lañu ay nit lañu te dañoo mérité ñu traité leen comme ni ñuy traité suñu bopp ndax jombul kenn tey mën nga nekk ministre sax de la justice sàggane prison yi ëllëg yow nga retrouver ci ndax am na donc kon nga xam ni kon defal rek ngir yàlla defal ngir sa aqula taala defal aussi ndax doomu aadama lañu ba tax na kon ñun appel boobu la ñuy wax ñu améliorer les conditions de détention des prisonniers xam ne ay doomu aadama lañ mérité nañu une plus grande attention ba nañu ñu gën leen a bàyyi xel gën leen a toppatoo loolu rek laa ci doon wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci merci beaucoup